ba tey ci seen scandale du jour de ce 3 mai ñu déglu vidéo bi ñëwaat. donc keroog wax na ni projet bi ñu ngi koy bind fii léegi troisième trimestre si lay pare. kon projet bi bindaguñ ko ba mu man ba mu takk ko. teg depuis du boobu mais boobu boobu bi ñu jógee ci FMI la. waaw bi ñu jógee ci FMI mais FMI bañ fay dem. Hmm. budget bi président Macky Sall bàyyi woon fi mom lañ fa yóbbu. te budget boobu dafa amoon.

mais moi je la solution Abdou Nguer néna da rire. non solution reroul, solution réerul de solution reroul, projet reroul. waxi opposant la. waxi opposant ak réalité pouvoir ñaar yoy yalla. ak ok kon projet bi une fois au pouvoir lañ ko commencé bind wa keroog le président kii euh, premier ministre Ousmane Sonko loolu wax de nee si conseil qui communiqué conseil des ministres man gis naa ko lire naa ko. Mhm. mu ne projet bi dinañ euh, ay ministère yo xamni ni mmh. dinañ dinañ ko jangat bu ko defee ñu document de référence projet bi fii 3 troisième trimestre fii léegi at midi jeex si lañ koy khatim bind ko ba paré si budget 2025 mille fa lañ koy dugal. Tunkara nekkoon invité Daouda Wali. ci réew mi toll fii ci VIP people ma sekkoon ko ak moom mu nekk ndaanaan bu mag mu nekk grand boo xamante suñu pàpp la waaye eh, ci wàllum communication nekk na koo xamante ne eh, kenn du werante li nga xamante ne mooy mën-mënam ci wàllum communication muy joxe information bu wóor bu baax bi ak analyse bu pertinent donc moom lañ nammee ko ci Tunkara ñu dalaloon ko fii ci VIP people moom nag dégg nañ kàddu yi nga xamante yëkkati na ko ginnaaw bi ñu demee FMI jóge fa ñëwaat ak ci li nga xamante mooy wàllum projet bi mais ba tey man fi ma jàppoon lay jàpp rek ni que nañ may ki nga xamante ne mooy PM sens mu yeggali euh, projet bi 2025 su ko defee mu tagal ñu ko ci table bi te dina fekk bu neexee yàlla mu gën a baax ndax nag lu ñu toggaat day gën a neex donc ñu ñu yeggali projet bi mu ngi noonu du noonu ok projet bi dina yegg bu neexee yàlla suñu borom bu leen yàkkamti bu leen dara métti. with you.